monsieur Louis Ibrahima Mango professeur de lettres ici au lycée Amary Ndack Seck de Thiès. boo ñu laajee ci sengoor dañuy gën a sawar sax ci wax ci sengoor parce que Senghor dafa am ñaari facette malheureusement nit ñi facette bi ñu gën a xam mooy facette sengoor Senghor homme ñaar sax ba ñett sengoor enseignant Senghor homme politique Senghor écrivain kon sengoor école la ëpp cër ci moom. donc euh, boo ma laajee kuy Léopold Sédar Senghor maanaam nit bu ñu laajee mooy kan dañ la laaj juddoom sengoor dañu ne dafa juddu le 6 octobre mooy la 9 octobre 1906 à Joal am na sax ñu naan juddoowul Joal am na ñu jàppee ni Djilor la juddoo mais ci déclaration ci këyit yi Joal la ci nekk Joal boobu noonu fa la këru waajuram aussi nekkoon ba léegi mu nga fa ñu tuddee ko mbin jogoy mbin ci séeréer mooy kër jogoy jogoy boobu noonu jogol jogoy Basile sengoor mooy baayam jogoy ci séeréer itam tekki gaynde koy dendoog Senghor kon doomu gaynde gi lañ koy woowe yaayam tudd ñilaan baaxum ñu ne sax ñilaan moomu am na ay euh, descendance su pël kon day mel ni sengoor daa métissé su deretu mandeng deretu pël ak deretu séeréer donc sengoor déjà à la naissance il était métis boobu Euh, la juddoo yaroo jiloor ak nijaayam bu ñu doon wax tokowaal yi parce que ci culture séeréer doom famille ndayee koy moom euh, nekkoon li goneeg séeréer yëpp di def di ko def di sàmmi di dem ci sayaan yi di am lu bëri lu mu xam lool c'est dans son royaume d'enfance qui était jiloor jàppe ni sax lëj gu mu lëjoon gone lëj gi mu lëjoon moo tax ñu dugal ko école pour dénk ko tubaab yi ñuy jéem ko yar lëj googu moo ko yóbbu Ngazobil fa la jànge ba doon séminariste ba ni mu amee euh, diplôme yi ko génne foofu mu ñëw fi ngi fi ñu tudde léegi lycée Lamine Gueye tuddoon lycée Van Vollenhoven à l'époque ca la fa la amee son bac soogam dem bitim réew kon daal sengoor boo koy tënk ci juddu moom mooy doomu Basile Diogoye sengoor ak doomu ñi laan baaxam tudd nag Léopold Sédar sengoor nekk le vingt-quatrième enfant de son père qui était un riche traitant un riche commerçant boo xam ni c'était un chrétien polygame jàpp nañ ni sax yaayu sengoor moo doon ñetteelu soxnaam kon ci juddu koo koy Senghor di doomu Sine di doomu séeréer beneen facette sengoor bu ñu waxee juddam ba pare Senghor dans sa vie active ba muy jàng jee réew yi nasaraan si ba pare da ngay xam ne aussi sengoor def na armée def na la seconde guerre mondiale nekkoon na sax un tirailleur ci nañ ko xaw a libéré ndax ay problème gis euh, problème visuel yu mu amoon mais Senghor il a comme professeur en Europe ci milieu jàngale la ko Lamine Gueye jëlisee ndax itam ndam la woon ñu ne y avait un noir qui était agrégé en grammaire noir boo xam ne demoon na bay jàngal nasaraan yi seen làkk ci lañ ko indee Sénégal conférence publique bi sengoor njëkk def Sénégal mu ngi ko defee chambre de commerce tous après son agrégation mais coow la mu fa waxoon ba tey jii nii dafa jur coow ndax dafa jur incompréhension parce que Senghor des fois il parle en poète dafa ne jeune bu vous parlerai pas en agrégé de grammaire ni en agrégé de la Sorbonne mais en séeréer du Sine Saloum avant d'aller apprendre la langue de l'autre apprenons d'abord nos langues locales il faut nu nous enraciner profondément dans valeur valeurs civilisationnelles avant de nous rouvrir de nous ouvrir au rapport fécondant de l'autre mais li tax ma ne coow loolu wax jooju daf ko jural coow parce que dafa wane ni moom nit ku métissé la wax jooju tax na nit ñu ñuul ñi ànduñoo ak moom nit ñu weex ñi ànduñoo ak ñoom parce que nit ñu weex ñi tubaab yi fi nekkoon dañ ko recevoir on avec les honneurs militaires déroulé ko tapis rouge yaakaan day ñëw def la promotion de leur culture et de leur langue mu ne nañu jàngi d'abord suñuy làkk tubaab bi ne kii war nañu ndax ñoo ko jàngal ba koy teral nit ñu ñuul ñi mu ne nañu jàngi suñuy làkk ñu ne daf ñoo bëgg a tardeel ndax moom lii mu am nii tey làkk séeréer mayu ko ko làkk wolof mayu ko ko làkki tubaab ko ko may mu naan ñu dañu jàngee suñuy làkk ba pare maanaam jàppe ni moom da leen bëggoon tardel kon dès le début sengoor a été un incompris ba ni ko Lamine Gueye jëlijee ñu bokk di politique mais Senghor jusqu'à sa mort il s'est réclamé être un paysan xam nga nit ñi dañuy toog malheureusement am génération bu ñu chargé ba bañ loo leen Senghor mais sengoor ku gëstu jaar-jaaram gëstu méritam model la symbole la ndax bi mu ñëwee di politique am fu mu jaar ak këru diine yi fi nekk yëpp amaana doon na gudd mais ci nettali ci gëstu bi ñu gëstu am na nu mu jëflanteeg Seydi Ababacar mi fi nekkoon xalif ba mu ne sama kàddu jiitu na ma sama ñaan ki yàlla fas yéenee fal laay fal ba mu demee tuuba waxi nopp sëñ fallu ñëpp a ngi fàttaliku Senghor seng ca sa sa kaw nee leen ko jàkk bu ko kenn piis noonu la demee woon ak la famille omarienne noonu la demee woon ak famille këru diine yëpp te Senghor nekk doublement quelqu'un qui appartient à des minorités les chrétiens à l'époque ne faisaient pas 10 pour cent de la population donc il appartenait à une minorité religieuse son ethnie séeréer du Sine était aussi une minorité ethnique c'est pour montrer que les Sénégalais bu la doon fal xooluñu diine goo bokk xooluñu ethnie boo bokk dañoo jàppe ni boroom xam-xam la ñuy fal ñu tarixa boo bokk Sénégal googu sengoor irrité woon dem léggee ko Sénégal googooy Sénégal Sénégal gu nit di wéeru ci diineem ci tarixaam ci sëriñam ci ethnieem pour jiite ñu Sénégal googu Sénégalu musiba la moo tax ma ne dañoo war a dekkalaat sengoor dekkalaat la culture de la tolérance euh, sengoor homme politique peut-être a u à faire des erreurs parce que c'était le premier chef d'État amaan nag ñoo am na ñoo xam ne jàpp nañu bu ñu amee benn retard sur le plan économique c'est parce que Senghor n'avait pas trop favorisé l'économie il avait favorisé la culture en tant que qu'homme culturel ñiy poser critique boobu mun nañ leen ko nangul mais il fallait d'abord fonder une nation solide une nation bâtie sur la paix une nation où le dialogue islamo-chrétien et une réalité une nation où le cousinage à plaisanterie été une réalité sengoor bu demoon campagne Fouta day dem ne leen seen gàmmu ñëw na xam nga fexe ba instauré lool bu demee dans la Casamance ne leen ñun suñu sengoor suñuy origine sax mandeng la nous sommes des descendants de l'empire du Mandé donc fexe ba Sénégal doon benn bopp waa moo kon bu ñu fexe ba Sénégal doon benn bopp mais tey ñi bëgg jël réew mi ku nekk di ko xaaj di wut région boo wéeru wala etni boo wéeru wala diine goo wéeru loolu baaxul ci mim réew loolu lu ñu war a décrire moo tax ma ne le modèle senghorien doit revenir loolooy trajectoire am ci juddoom ci jàngam ba ni mu jote nguur diriger réew mi fekk fii ñu jéem a def ay tentative de coup d'état amaana am nu ko déjoué mu jiite réew mi presque pendant vingt ans ba vingt et un ans joxe réew mi le 31 décembre 1981 teg ko ci loxo yi Abdou Diouf ba li ci nguuru Abdou juuf ni mu jeexee nguuru Ablaye Wade ba ci nguuru Macky Sall tey boo gisee opposition ak Ablaye Wade dafa amoon sens de l'humour bu ñu dee wax Laay Njomboor kooku sengoor a ko tudde woon Laay Njomboor parce que Njomboor bi mooy lan Senghor a njëkk a magnifier l'intelligence de Ablaye Wade parce que Njomboor dans la culture africaine dans la culture sénégalaise mooy lëg mooy njomboor c'est le symbole de la ruse et de l'intelligence vous comprenez kon lépp lu mu doon wax ci xam-xam lay waxe kon bu ñuy laajee Senghor laajte ko ci biir école fa lañ ko laajee te son combat de révolutionnaire il faut installer Senghor parmi les révolutionnaires parce que quand il parlait de négritude le mouvement de la négritude était une révolution culturelle mu définir ko MSSR créer le mot Senghor définir ko comme l'ensemble des valeurs culturelles et civilisationnelles du monde noir sengoor naa jamais voulu et ne s'est jamais départi de son ethnie de sa culture il était tey bëri na ay intellectuels ou bien soi-disant intellectuels que je mets entre guillemets yu koy décrier Senghor a leen gën a xam culture africaine moo leen gën a xam culture séeréer parce que mine de il parlait plus de quatre langues africaines Senghor dañ ne ne da doon làkk sax pulaar ba doon na ko jàngale da doon jéem a làkk mandeng olof bi kenn waxatul ni mu ci demee da ko doon làkk ak séeréer ba mu doon tey bëri na ñoo xam ne dañuy jàng du ñu am lu dul licence du ñu am lu dul bac du ñu am lu dul brevet du ñu am lu dul diplôme des fois maîtrise wala doctorat pour wane ni ñoom ay intellectuel ñu dañuy mel ni ñu déggatul olof bon vous savez lii xaw ma nuñ koy waxee ci olof non sama olof leerul yow nan ngay juddoo Sénégal màggee Sénégal juddoo Ndande Fall wala juddoo Kabatooki wala juddoo Bokki Jawe wala juddoo Matam wala nga juddoo Wuduru dem Europe après la bac jàngoo fa lu dul ñeenti at ñëw naan noo sama pulaar leerul sama olof leerul c'est ça les vrais complexés Senghor ni mu doon waxee sax nekk naag tubaab yi ay ati at ak accent du accent tubaab da ngay sentir ni séeréer la buy làkk tubaab te il s'est toujours réclamé de, comme je l'ai dit, des paysans. Il n'a jamais voulu être un cadre, mais il s'est toujours réclamé fidèle à la terre, être un paysan. moo tax kër yi mu doon dëkk yëpp sax boo xoolee gàncax gi da ci yëpp wëral Sénégal gis fi étage bu ñu naan la Senghor ko moom wala immeuble bu ñu naan Senghor ko moom koo xam ni amoon nga lu ëpp quatre-vingt-dix frères nga jiite nguur mënuñoo tudd sa ñetti frères yu nekkoon ci nguur gi tey am na ministre yoo fal defuñu juróomi at ci nguur gi li ñu fi am ci alal Senghor def doon na président pendant vingt ans bàyyiwul alal gën tool Sénégal laa la wëral nga xool alal ju naan na sengoor a ko moom parce que il s'était il était désintéressé léegi da ngay fal ñoo xam ni ils ont la boulimie du pouvoir jiiroo alal fexe woon ba ñuy respecté njàng fexe woon ba ñuy respecté intellectuel parce que am réew bu ñu nasaxalee njàng mi nasaxal intellectuel yi réew moom mënatul a développé. ay bindam bindam ci xeexam la bokkoon parce que sa littérature de la négritude Senghor bindul ay roman ay essai la bind liberté 1 mu tuddee ko liberté euh, négritude et humanisme bind liberté 2 liberté 3 ba ci liberté 4 ou 5 ay liberté donc pour promouvoir la liberté de l'homme noir mais sengoor et surtout connu comme le poète le poète Senghor dafa bind recueil de poème am premier tuddee ko chan d'ombre ay wëy pour Senghor la poésie ne sa que quand elle est chant mu tuddee ko champ d'ombre boo xoolee dans la dans l'ombre y a le noir créé beneen bindaat beneen recueil de poème tuddee ko nocturne nocturne boo xoolee guddi la créé bindaat beneen poème tudde ko osti noir recueil osti boo xoolee sama mbokk chrétien yi xam nañ ni osti c'est le corps du Christ comment les noirs se pour sauver l'Europe bindaat beneen recueil de poèmes tuddee ko éthiopique Aïthiopes en grec c'est ce qui est brûlé donc Senghor lépp lu mu bind noir bi da ciy feeñ mu ne je veux être le djeli le griot de mon peuple ma négritude est trouelle à comme mason daa war a tabax au lieu d'être le guide de mon peuple je serai son griot pour le chanter kooku noonu bu ko nit ñi jógee pour un combat purement politique bëgg yaakaar ni danga koy joggate suul ko mérite la parce que ku juddoo ci village yi la jàng ba tey jëmmi tey jii nii wëral àdduna le Sénégalais le plus populaire reste Senghor et de plus au de loin parce que nag xam-xamam boo demee ba dans ay réewi Afrique jël ay université tuddee ko kooku boroom xam-xam la te ñun jàngalekat bu ñu laajee ci boroom xam-xam bu mel ni sengoor dañuy sawar wax ci bëri na ñu koy xarab bëri na ñu koy diingat bu ñu sañoon mel ni moom bu ñu sañoon jur doom ju mel ni moom kon kooku bu jiitee réew mi jiite fexe ba bal tàkkul sagar xeeñul géej gi débordé wul les quelques mouvements de contestation velléité contestataires yi ñu inhibé ko ba fi ñu toll nii tey Sénégal dégguñu fi coup dégguñu fi guerre ethnique wëral réew yi ñu wër yëpp coup d'état yi comme tulleeg màlle kon y a de chose que le peuple sénégalais doit à ce grand homme là y a Sénégal nag où l'on kon dafa am sax benn adversité bu ñuy créer au fond qui n'était pas vrai ñi xam sengoor xam Cheikh Anta Diop sur le plan de la pensée ñoo bokkoon mennum gis-gis ñoom ñëpp défendre der bu ñuul moo la ñu la ñu doon def maintenant sur le plan politique xam nga de l'UPS ba ni Senghor doonee parti socialiste ba bi muy jox Abdou Diouf nguur gi dafa waxoon benn phrase bu neex mu ne c'est mai de fer dans un gant de velours vous comprenez Abdou Diouf c'est l'incarnation de l'homme d'État froid bëriwul wax mais moom it fexe na ba puso bi mujjewul ci ay loxoom daal di saayi loolu noonu fexe na ba tegu ci loxo loxoy Ablaye Wade Sénégal di rayonner ci nguuru Macky Sall même chose ba ëllëg keneen ku mun a jël nguur gi dafa am lu ñu war a préserver au Sénégal c'est la cohésion sociale niñ naan Sénégal benn bopp la Sénégalais sunu gaal ñu dëggal ko vous comprenez Sénégal kon sengoor loolu il a construit les fondations d'un état nation kon tey Sénégal bu dee jox nañ ko cër à travers le monde que njëkk liggéey loolu Senghor la kon tey bu ñu nekkee vingt et un ans ñuy commémorer war a célébrer anniversaire am bi bi ko fi yàlla jëlee mu làqu gëm naa ni sax école yi dañoo waroon def une minute de silance wala école yi dañoo waroon wax ci jëmu jooju teewul nag école yaa ngi koy jàngale à travers le mouvement de la négritude waxuma la sax Senghor waxuma la sax sengoor dafa am erreur bu am sunu école yi sengoor mi gaañu barki démb boo Njaay ne deux mille vingt euh, deux mille un donc ñu soog nekk ci vingt et un ans déjà ñu ngi koy fàtte kon ana mag ñi xeexaloon Sénégal du wëral ci école yi bi ci école nga nekk génnal nga dajeeg suñu benn élève terminal ne ko Thierno Souleymane Bal la révolution torodo des euh, xam nga xamu ko donc école ñoo école boo xam ne magi réew ma jàngale wuñ leen aaday réew ma jàngale wuñ leen boo duggee ci classe yi nga nga bàkku wax luy bàkk wala nga wax luy jiin wala nga wax luy xaxar dañuy yaakaar ni euh, la ngay wax ay tooñ la le vrai mooy ki xeeb li mu doon te motul li muy yóotu yàlla def la ngay nit ku ñuul yow nga bugg a rey lépp luy nit ku ñuul ci yow bugg a doon tubaab tubaab liñ naan la boo xeebee li nga doon te motoo li ngay yóotu yow da nga réer bàyyi nga sa yoon. xam nga nag Senghor mooy ki nga xam ni dañ koo wax loo téeméeri mbir yoo xam ne mosu koo wax question d'interprétation la xam nga dañuy naan Senghor naan moo ne l'émotion est nègre la raison est hellène cela n'a jamais été dit comme sa et Senghor ne l'a jamais dit ainsi Senghor a eu à dire l'émotion est nègre tout comme la raison est hellène donc c'est une comparaison mais boo génnee tout comme bi rek da nga ciy génne donc il n'a jamais dit que le noir est dépourvu de raison et que le blanc est le seul qui raisonne. Blanc comme noir, tous les deux on leur raison, tous les deux ont leurs émotions. Mais il arrive que le peuple noir est d'abord plus te ba émotif. Nous réagissons plus par émotion que par raisonnement. nii yow muy yow nit ku ñuul comme man nit ku ñuul nous, raisonnons, nous, plus par nos émotions que par nos raisonnements. Senghor loolu la waxoon la l'émotion est nègre tout comme la raison est hellène mais maanaam waxloo nañ ko lu bëri lu mu waxul yow aussi en tant que sunu ancien élève fàtte woo ni Senghor ndaanaan la ci ndaanaani réew mi tey nga def sa rôle journaliste dem ci école yi laaj kan mooy Senghor mais gëm naa ni boo ko laajoon ñenn ci élèves yi duñ la ci waxati lu bëri parce que malheureusement itam léegi jàng jàngale bi day duggee fii génnee fee waaw woy woowu ngay def ci sa animation yi daal fatal ma foofu boo demee defal élèves ne boo leen jàngee ñu jël fatal ma foofu daal di fat ndax jànguñu pour muy tuuru jànguñu pour muy senn macha allah tabarakalla alhamdulilah